gaal gu yeboon ay candidat nag teg leen loxo foofee ca lomp la bokk na ci ñoom juróom ci ay soxna patrouille boobee nga xam ne rek démb la ko waa marine doon amalee ca Kayor nag moo waral ñu teg loxo ab gaal goo xam ne rek dafa yeboon ay candidat yoo xam ne rek seenub lim toll na ci ñaar téeméer ak ñaar yoo xam ne rek bokk na ci ñoom juróomi soxna ak benn mineur ñoom ñooñee nag ci la waa ba daal di gàntalee seenug pexe ñoom ñëpp nag fi mu toll nii yéenekaay bi ne delloo siwaat nañu leen Dakaaru ba jébbal leen ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yore wàllu wi ay dëmbooj ma ngay amaluk yeddaange jëm ci ndaw ñi nag ngir ñu des ci biir réew mi ci biir yëglekaay bi di source a ma nga leen di ñaan ngir ñu toog ci biir réew mi ndax amul benn njëriñ ngay jël ay gaal di dugg ci géej gi ba di ci ñàkk seeni bakkan bu ngeen amee gëm-gëm rek mën ngeen a tekkee fii ci biir réew mi yéenekaay bi di indépendance na directrice bu deer kay jamono ji nag ma ngay soññ ndaw ñi ngir ñu des ci biir réew Sénégal des ba tey ci réew mi quotidien moom mi xëyee tey ji itam nag ci condition de détention yi nga xam ne rek moo soxal prisonniers yi ak rapport bi nga xam ne rek ONLPL jébbal na ko njiitu mi di président Bassirou Diomaye Faye yëglekaay ne ko benn prisonnier sax démb ñàkk na bakkanam foofee ca rëbës ginnaaw ab crise d'asthme boo xam ne rek am na ko lu ñu mel nag moo mujjee yóbbu Serigne Fallou Ndaw di jamono joojee mu fekk prisonnier yi nga xam ne rek ñoo nekkee ca camp pénal ñoom ña ngay dëkkee grève di ñaawlu nag lu jëm ci xoqatal yi nga xam ne rek moom lañ leen di xoqatal bés bu yàlla sàkk ginnaaw jàppante yi nga xam ne rek amoon na ci biir prison bi ci fan yi ñu weesu ñii di waa asret nag ña ngay xam ne ni nag coono gi nga xam ne rek moom la prisonnier yi nekkee bokk na ca la koy waral addu jëmalee ci yéenekaay yu bari yoo xam ne rek tey jii xëy nañu ci ay révélation yoo xam ne rek tukkee na ci maire bu commune bu Ndioum nekkoon fi ancien ministre moom Cheikh Oumar Anne nag ma ngay dellu siwaat di xam ne ni ab sëyam tas na ak digganteem ak alliance pour la république di APR ma ngay xam le boobee xibaar démb ci ab émission bu ñu ko dalaloon moom moomee nag jamono ji ma ngay waajal élection législative yi moom Cheikh Oumar Anne di xam ne nag ne Amadou Ba fas yéene nañu koo jiita ngir mu doon seenub tête de liste ci ñu jëm nag bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom Cheikh Oumar ma ngay leeral ne li mu bëgg jamono ji nag mooy fexe njiital opposition bii di Amadou Ba nag doon président de la république ci atum moom ancien ministre de l'éducation nationale nag daal dinay def prox ndoll ci boobee émission yëkkati fa ay kàddu yu doy waar bokk na ci doxalin yi nga xam ne rek doon nañ ko doxee ci jamonoy élection présidentielle yi ci diggante parti Pastef ak kii di président Macky Sall bi des ba tey ci kàddu yi nga xam ne rek ancien ministre de l'enseignement supérieur élection présidentielle yi le peuple fellu ko des ba tey ci kàddu yi nga xam ne rek Cheikh Omar Anne yëkkati na ko lu jëm ci taxawaayu Mimi jamono ji nag moom ma ngay xam ne ni moom moomee nag dafa waroon a doon présidente bu assemblée nationale noonee ma ngay soññ coalition Diomaye Faye nag ngir ñu def ko ab tête de liste bu ko defee daañu am ay résultats ndax moom Mimi nag li ko tax a jugee ci APR bokk na ci li ñu ko ñàkk installé ci bopp assemblée national Cheikh Omar Anne ma ngay xam ne ni moom Mimi Touré nag lu ñu mel bett ko ndax xamoon na ne président Macky Sall du ko tabb mukk nag ngir ngir muy doon présidente bu assemblée nationale ba nopp mi ci yokk nag ne président Macky Sall laataa élection yi gisee na ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye seen projet bii nga xam ne rek moom la ñuy digtal askan wi mësuta exister ay naxembaay la te gis ngeen ne jamono ji nag vaar yi mu ngi bàyyeekoo fu nekk lii quotidien ne moom kay jamono ji nag sëy ba tas na ci diggante APR ak kii di Cheikh Omar Anne fi mu toll nii nag ab moom lay waajal ci digganteem ak Amadou Ba enquête yëglekaay xëyee moom tey ji nag ci fonds secret yi nga xam ne rek jur na coow boobaak léegi yéenekaay bi xëyee ci ab gëstu bu yaatoo yaatu ñeel koppar yooyu ak ni ko pouvoir bi war di jëfandikoo rawatina président de la république nag ñeel ay fonds spéciaux yoo xam ne rek moom la war di génnee jafe-jafe yi nga xam ne rek ug e am na ko ngir di amal ay contrôle jëmale ko ci président de la république laa séglekaay xëyee itam nag ci bilan bi nga xam ne rek waa FRAPP amal nañu ko nag ginnaaw téeméeri fan yi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye jiite na ko bopp réew Sénégal ñoom nag ña ngay amal ab rapport boo xam ne rek ñu ngi koy jébbal nguur gi àddu nañu jëmale ci boobee rapport dara ci lu jëm ci wàllu franc CFA bi wàllu FMI ak banque mondiale démantèlement bu base française yi nag loolee lépp àddunañ ci yër leen boobee yëglekaay Sud Quotidien xëyee ni ki tey ji nag ci BFM 2024 yéenekaay bi ne lu toll ci cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-seize mille candidats nag ñoo fas yéene boobee jongante dina toll ci ñoom cent neuf mille neuf cent quarante ci ay jigéen quatre-vingt mille neuf cent cinquante ci ay góor ñoom ñooñee nag fas yéene nañu leen a séddale ci ay centre yu nekk ci biir réew Sénégal bokk na ci cent quinze ci ay jury yoo xam ne rek moom la ñu fas nag mu di examen yoo xam ne rek du yomb lool ci élèves yi ginnaaw bi ñu nemmeekoo ay jafe-jafe sociopolitique yoo xam ne rek jotoon naa xew ci biir réew Sénégal addu jëmale ci leneen loo xam ne rek dina xew ci biir réew mi mu di wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi nga xam ne rek xëyee na ni ki tey jii ci komba bi war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine yéenekaay bi di peeko le choc de tous les dangers sunu làmb addu jëmale tey jii nag moom itam ci combat combat boobee nga xam ne rek Balla Gaye dafay ñëw ngir wanewaat boppam tafaatin nag ñëw moom itam ngir venger wu beneenub yëglekaay xëyee ci tontu li nga xam ne rek tafaatin tontu na ko Balla Gaye moom gonek reefaan gi nag ma ngay xamal Balla Gaye ne ko tafaatin bi nga daanoon bokkul ak tafaatin ji nga nar a gis niki dimanche ji mbokk yi jeexalee ak libération mi nga xam ne rek xëy na tey ji àddu jëmalee ak beneenub mbër mi nga xam ne rek dañu koo teg loxo ngir lu jëm ci wàllu trafic de cocaïne bokk na ci saalum saalum mi nga xam ne rek jamono ji mi ngi